ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp gi ñi nekk fii ci marché central au poisson bu Pikine daal dinañu diagnostiqué jafe-jafe yi nga xamante ne secteur bi mu ngi koy jànkoon. waa jafe-jafe yooyu bu dee partout fépp problème de ressource la d'abord rareté ressource bi c'est un problème bu doy waar bu yéeme bu ñëpp constaté au niveau mondial sur surcharge exploitation bi maanaam surexploitation bi sur surpêche bi. napp gi nga xamante ne wax dëgg yàlla muy gaalu looco yi muy bateau yi bëri nañ ci géej bi ron ron ron beaucoup de bruit jën dafa bëgg lu apaiser lu calme. leneen li ñu constaté mooy ñàkk jot ci yooyu les ressources. ndax jafe-jafe problème mënut a paase yaa ngi jaay guddi ak bëccëg te mënoo génn si li ngay jaay kon jafe-jafe ak problème mënu kaa paase. jafe-jafe yi bari na ci wàllu secteur de la pêche. état ak acteurs yi daal di leen leen invité ngir ñu trouver ay solution yu concrète jën li muy dugal ci devise Sénégal dara dugalu ko donc sàmm géej gi mooy sàmm économie réew mi sàmm géej gi mooy sàmm wéru askan wi parce que premier protéine alimentaire jën la su yàlla may ñu ci 718 kilomètres de côte kon war na nañoo mën a préserver suñu géej ba forme de pêche yëpp am fi muy pêche artisanale comme industrielle ba pare géej gi am jën journée bi nga xamante ne dañ ko jagleel wàllu napp gi war na servir de tribune ngir ñu mettre le doigt fi nga xamante ne fa la mbir yi sooxe ngir rek secteur de la pêche daati amaat beneen xar kanam bi ñu sukkandikoo ci seen kàddu